kàddu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko tënku lool ci kàddu sëriñ bi kon mbokk yi ni mu ko rek sëriñ bi nee mi yi nga xamante ne bi moom ñoom ñoo bokk liggéey bu mu mas a woote ci kër sëriñ Saliou loolu mi ci jiital sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mii di xamal mboolem dongay tarbiya yi ne bu ñu déggee dégguñu seenu tur ci woote bi la leen sëriñ bi féetale woon ca maat lim gerte ma ñoo xam ne moom bu ñu déqee tool ñoom ñoo ko war a bàcc naaf ko jëri ko moo tax sëriñ bi nee na mu yéwénal leen ndax ñaari yoon yi xaw naa dis ñoom waaye dongay tër bi jaar ci kër sëriñ Saliou yëpp sëriñ Maxtaar Jaxate mi ngi nii toog nañu xam ne ñoom bàddalim gerte ma ñoom ñoo ko amee sëriñ bi nee na mi ngi ciy sant bu baax sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulaye Karam ci teewaay bi ak Serigne Cheikh Anta Mbacke moom Serigne Modou Rokhaya di ci soññ nag Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Modou Abdoul Khadir mm. Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah moom Serigne Fadilou Serigne Saliou Mbacke moom Alaaji Mouhamadou Lamine Bara Serigne Galas Kaltoum moom Alaaji Mouhamadou Lamine Bara Serigne Xabaan Mbacke moom Serigne Abdou Ummi Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Abdou Mbar Serigne Saliou moom Serigne Abdoul Aziz Bara Serigne Modou Mbacke Maawul Hayaat Serigne Sohaybou Fall moom Serigne Modou Aminta Fall Serigne Badara Fall moom Serigne Talla Yacine Fall Serigne Khadim Fall moom Serigne Abdoul Aziz Fall Serigne Sohaybou Sarr moom Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Saliou Sarr moom Serigne Abdoul Karim Dieng Balla Fally Serigne Youssoufa Dieng moom Serigne Naar Dieng Serigne Sohaybou Dieng moom Serigne Mbacke Dieng Serigne Sidi Mbacke Serigne Sidi Dieng moom Serigne Serif Dieng waa kër Serigne Bassirou Dieng moom Serigne Mbacke Dieng Serigne Mbaye Dieng moom Serigne Sidi Dieng moom Serigne Mbacke Serigne Sidi Dieng moom Serigne Abdou Latif Dieng Serigne Cheikh Sam Diop ak i rakam Serigne Abdou Samad Diouf moom Serigne Thierno Diouf lambaay ak mboolem ay rakam Serigne Abdou Lahad Ndiaye moom Serigne Fallou Ndiaye xewar ak mboolem njabootu Serigne Cheikh Ndiaye xabar gépp Serigne Moustapha Diakhaté moom Serigne Khayri Diakhaté Serigne Abdourahmane Diakhaté moom Serigne Cheikh Anta Diakhaté Serigne Cheikh Diakhaté moom Serigne Khadim moom Serigne Abdoulaye Diakhaté Serigne Mor Diakhaté Daaru Diakhaté Serigne Khadim Gaye moom Lawsat Gaye Serigne Khadim Tine moom Baye Gora Tine Mbacké Serigne Naar Diop Touba Bokhatul Mubarak Serigne Khadim Touré Imam Serigne Sidi Mbacké Landang ak mboolem njabootu Serigne Bousso Mbacké gépp Serigne Mor Cissé moom Serigne Ibra Cissé Touba moom sëñ sëñ Mor Mbaye Cissé moom sëñ Ibrahima Cissé Touba sëriñ Abdou Gora Mbaye Pire alaaji Mamour Ñing ak mboolem waa Refan alaaji Mass Ñing moom sëriñ Saliou sëriñ Modou Dieng Thiès sëriñ Abdoulaye Fall Thiès sëriñ Mbaye Diop Mbour sëriñ Modou Sall Xabaan sëriñ bi nee na ñii daal kenn ku ci nekk ma nga lay soññ ci liggéey boobu ak sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Makhtar Mbacke xabar di ci soññi nag mbooleem transporteur yi ni nga xam ne ni la ko Serigne Cheikh Amar jëlee wax ne fu waay bëgg a dem te mbooloo ne fa boo jokkoo ak Serigne Mbaye Amar Baye Fallou TSE joxe na ay numéro téléphone am nee na danañ la yónnee oto mbo ñu jël si la yóbbu la ca liggéey ba bu jeexee ñu delluwaat la delluwaat la foofa numéro téléphone yi bu ñuy jeexal daañu ko lim waaye sëriñ bi nee na mi ngi soññi sëñ Mbaye Touré Touba sëriñ Abdoulahad Ndiaye Dakar sëriñ Xabaan An Gumba Ngeewul campement Ngeex Ngeexox sëriñ Ibrahima Dieng Dakar sëriñ Cheikh kan Mbana Dakar sëñ Cheikh Gueye Mbana Dakar Serigne Ibrahima Wade Diamniadio Baara Seck Kaolack ak regroupement safori benn yi nekk Touba ak Mbacké alaaj seex Gawane Ka Touba alaaji Mass Diop Touba Serigne bi nee na mi ngi ci soññ bu baax maire dëkk bee di Touba di Serigne Abdou Ka ndax mu ne su ko wootee Serigne Saliou mu nekk fa Serigne bi nee ci soññ nag mbooleem naari darmanko yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi te àndoon ak Serigne Touba Khadimou Rassoul la ko tàmbalee ca kër Serigne Jéeri Wadaan ba ci kër gi nga xamante moom mu jëjëful Serigne bi nee mi ngi leen ciy soññ te xam ne seen doom ji di seenub sën mu fab liggéey bi teg ko ci loxoom yéen rek a tax mu joxoon ko ko ndax noonu ngeen ànde woon ak Serigne Touba nee mi ciy sàññi bu baax a baax Serigne Moustapha Diakhaté it Serigne bi nee na mi ngi koy soññ sëriñ bi nag nee na mboolem ñii ñu tudd koo xam ne déggoo ci saw tur na nga xam ne dañ lay nege tubaa Darou Salaam ndax tubaa Darou Salaam it liggéey ba noppi na te nii la mel te ñu am na jëwriñ yoo xam ne ñoo fa daa dem sëriñ bi neen na jëwriñ yi ku ci déggut saw tur rek na xam ne dañ lay nege Touba Darou Salaam ñoom it ñoo daa dem Touba Darou Salaam kon nañ séentu seen wàll sëriñ Ousmane Ndiaye seen transit sëriñ bi nee na mi ngi koy soññi bu baax a baax ni alaaji Mbay Mbeng itam Thiès alaaji Moodu Ndaw Thiès ñooñu ñëpp ku ne xam ne taxawaay bi ñu daa ànd ak sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Karam sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy soññ numéro téléphone yi nga xam ne nag ku ci jokkoo da nga jot ak sëriñ Baye Amar wala nga jot kenn ci fere yi mu jox la numéro oto boo xamante ne bii moo lay jëlee fa nga dëkk yóbbu la ca liggéey ba bu jeexoo mu delloo si waat la mën nañ koo jël ci 77 266 260 63 63 260 63 63 wala nga def 70 muy expresso

دور ناري بتوام أغلى خصائمي دم تطوليا مي شيخ أمر سرنشالي وقدمي نبتل سرنشالي ونويت كنا دم كوشوها شيخ مين دم بتل سرنشالي ولا واي دم كوشوها سرن بشيخنا أكتم تبتيو أم نبتم بلواي أم فمية جول ناي جول باي جول أبسل نخي فيني كوفيتين برمغر برم خبان برم دوكا برم دو شيخ سالم مكه كتاخ نفي تبارك ني نونا يار نك كي بيس شيخ ني نونا تي يار كيب كوم لبالون نونكو في سيرين تالو سيرين تالو كلام كوم لبالون رول كاي لبال سيكو سيرين تالو دان لا يار يوي نونا بنين بي كيب كو خاني ديب نا شيخ عمر يكتي باسام ديمو تي لوماي ليغيل فوكو ديب دنج كو فا وو واي يكتي باسام سوخلا لا سندي ديك ليبي seex bu sañoon bis boo xëyee indi mu góob mu góob ko mën na ko ndax yaa tax lu mu ci def ren bu déwénee muy asakay loola nee la mu defoon daaw li nga ko ci fayee ren Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké fayee ko ci nee ëpp na la mu defoon daaw moo tax ne bawul fenn bayul kenn bayul ñenn oto ya mu yóbbu woon dund ba mu yóbbu woon ne kenn def dara yokk na lool waaye woon na ci bokki boppam de cheikh bu soxlaa dara maa koy daru rasulullah woon a njaarale wona gaddiyel wona jéemul wona waadaan looloy dëkki darmanko yi ak yi yeneen dëkk yëpp waaye wona kër ndeyam de njaay ma mi mu bokkal bàyyi bokk ak moom ndey ma nga nee toog njabootu njaay ma koddu njaay ndar kenn du des te ndar la sa maam demoon nag fa la jàkkaarloo na góor seen gouverneur général kabbar julli ñaari rakka yi ba léegi ñu ko fay ñaari rakka yooyu ca ndar Cheikh mii ca man nee na a ndar kër ndeyam woon a darmanko yi kër bàyyam kuy xarit ngay soppi baa ngay wëllëri baa ngay bëgg Cheikh Amar te see Amar bëgg la Cheikh ne ñëwal fay si ko sëñ Saaliw bu la lebaloon bu la lebalul kaay lebal si ko dana la fay ndax sëñ Saaliw am na payta dana fay waaye sëriñ Cheikh noo ngi ñaan nga yàgg nag tamit ku sa maam rafattali ñun ak la 19 ak la bu kenn manqué ku ci ñëw sëñ Saaliw fàtt la te ku mu fàtt doo fanaan biti bu kenn manqué yéen ñëpp ñëw leen faat waxtu warul bi ñu duggee ci jumaa ji ñun kenal kenn ku ne wax nga ak sa bopp ku ne ñaanal nga diggante Kura ki rek Dakar boo julee ci gaal gi tooñ te boo jurul tooñ yàlla sa borom sa maam sànni dërëm bii ci gaal gi cëppi lu julli ndokk bi nga tabaxee jàkk yeeg jumaa yi parce que noo ngi ñaan nga yàgg loolu te lii daal mooy waxi Cheikh Abdou am na tàmbali waaye amut صفات صادق المريد باقتصار أربعة نظمتها خوف اقترار الصدق في محبة الشيخ أبد summa imtisaali amrihi ay suwarat